jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu ñëw ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi aw nar a wax ci ki nga xamante ne mooy coach su Aliou Cissé bi nga xamante ne fédération sénégalaise de football la bëgg mu wéyandil eh, ci équipe nationale bu Sénégal mais wax ci eh, binational eh, bi nga xamante ne équipe africain mi ngi koy xëccoo ak Angleterre loolu nag di nga ko gis ci jeexantal maaw vidéo bi ñu commencé ko. ak euh, coach su Aliou euh, Cissé euh, bi nga xamantene actuellement ñu bari ñi ngi réclamer départam ci équipe nationale du Sénégal notamment yenn ci supporteru Sénégal mais dirigeant fédération sénégalaise de football li ñu bëgg à Aliou nationale ak équipe nationale bu Sénégal ndax ñom nous lu tax ñu mëna dakk Aliou Cissé parce que gis nañ que né qualification coupe du monde 2026 mi ngi ñëw également coupe d'Afrique 2025 mi ngi ñëw donc pour ñu maintenir ñu maintenir à l'outil ci euh, équipe bi mom pour nous Dak parce que sax loolu gën euh, dina euh, équipe bi stabilité et tout donc je pense que ne loolu moment moy choix bi Sénégal jamono yi donc ñi nga nous Congo Dembu bi euh, ki nga xamantene moy mooy euh, Côte d'Ivoire éliminé ñom nak euh, ñi ngi traité arbitre bi de voleur ndax liko waral japp nañ kene ci début match bi ki nga xamantene moy arbitre bi dafa inti inti intimider joueur ñi nga xamantene ñoy congolais yi mais également première bi bi nga xamantene wa Congo da ko duggal mu refusé ko ñom japp nañ ko ne loolu du yoon benen bi ci dess timit bi bi nga xamantene ne Côte d'Ivoire daf ko duggal japp nañ kene ci départ d'action bi coup franc dafa am motax tax bi match bi jexé ñukay traité de voleur. Donc, qui dit Kobe Maina, le euh, euh, joueur anglais d'origine ghanéen. Donc, actuellement, la fédération euh, euh de football, nous avons boy avec Angleterre. Nous avons le tout pour convaincre boy le jeune espoir, la révélation du côté de Manchester United cette saison. Boy bi nag joué ci équipe 17 bu Angleterre i 18 ba i 19 jamoni yi joué Manchester United à chaque fois bu duggee dañ koy gis def performance am solo donc wa gana ni def le tout pour convaincre ko parce que papam ghanéen gagne la et tout donc ni def tout parce qu'il est né en Angleterre également c'est un joueur bo xamantene il est pétri de talent un milieu de terrain bo xamantene polyvalent man jouer comme rôle hybride man na jouer comme milieu défensif mais également milieu offensif euh, moo en tout cas boy la bo xamantene bu ñëwee man na apporter ganalu bare bare li la ñu andi loon wax ko wéy di like di commenter